kan ko kum be kano kendi kayga tanomi mbu many mati kayga oke ko be ka bajo mbujo mu lako mu jike kayga wano sani ulako mu che ulako musanken wan manje lawul cheng pankurege buma kayga ko be kaneno parce que ula fonyi ula kayga nu manjam kabri nenari nya uliko kala yaro mati jijo manji jo kayga manji manja ula tu mana tambe ka jit makega keno fochule nyom de law mte kane funaka furi ngendi kayre mam jo njombe saafo eh, loolu am na solo comme ni mu ko waxee eh, sama mbokki joolaa yi dégg ngeen ko mm. lamb nag moo daan boole aada ak cosaan yi làmb moo daan boole xeet yi moom moo tax président Jammeh ne lamb cosaan la ak aada boo xam ne wartu dee mm. dañ ko war a jàpp ngëb ko because ñoo ko moomal suñu bopp mm. dañ ko donne si suñu ay maam bu ñu réeréwu leen mbir làmb moo daan jaxase xeet yi yëpp Eh, pël joola ak ñi nga xam ne mooy séeréer foofu lañ daan xamante mhm. foofu lañ daan gën a miinante moo tax léeroo ñu mbir ne am nañ district competition bi nga xam ne foofu lañ demoon tour régional mhm. mel ni gouverneur si dinan ñëw ñoom ñu ne ñoom moom ndam le mais aussi ñu ne ñoom moom ndam li waaye kan na ko war a moom yaakaar naa ne dina leer promoteurs yi nga xam ne yéen a jàpp si làmb ji ñu ngi leen di oo parce que bokk ngeen si làmb ji mbëri bokk ngeen si làmb ji journaliste yi bokk nañ si làmb ji rawatina ñi nga xam ne moom la ñu ooyee gawja ñi nga xam ne jàpp nañ si làmb ji ñoom it bokk nañ si làmb ji ñoom ñëpp ñu ngi leen di oo wan leen ne event bii is a national call du promoteur moo ko tëgg Gambia ak li ko war ñoo ko tëgg muy làmb ju rëy ju am solo làmb joo xam ne dëgg yaakaar naa ne bëre dina fa feeñ làmb joo xam ne dëgg yaakaar naa ne euh, ambiance dina fa feeñ yaakaar naa ne aada ak cosaan dina ñëw parce que the honorable minister of youth and sport honorable Alieu K Jammeh wax na ne am na ay ndàmpaay yoo xam ne dina ko joxe si aada ak cosaan ku ko gën a indi ku gën a indi ngemb ku gën a indi fecc bi parce que loolu làmb moo ne euh, gém boo xam ne ku ne am na loolu fa indi ñii bëre leen fa indi ñii fecc baa leen fa indi ñii li leen fa indi mooy euh, li nga xam ne mooy euh, euh, fecc mbër yi wala seen takkaay yi ñu nga xam ne moom lañ ko takkaay li ñoo wax fii nag mooy làmb la boo xam ne réccu te yaakaar naa du si nekk mm-hmm. waaye nag samedi la ak dimanche bi nga xam ne moom la ñu dëmmal muy on the first ak on the second mu war a ew Serekunda West mini stadium mm. yaakaar naa ne ñuy seetaan képp koo xam ne yaa ngi topp programme bi ak pépp programme bi bi nga xam ne moom la ñoo def GRTS muy lewaatoo di nga am li la doy si event bi nga xam ne moo war a xew nii ticket bi nag ñu ne free la xale yi nañ daawti ñëw mag ñi ak jigéen ñi ñëpp nañ leen yaay compines yi nañ ñi nga xam ne mooy borom ndomba tànk yi ñoom ñëpp ñu génn si ñu xam ne lii bokk na si li ñoo ooyee independence celebration 49 independence celebration of the Gambia bés bi nga xam ne moom la Gambia moomoon boppam bés bi nga xam ne moom la Gambia xamee seen bopp bokk na si celebration yooyu di nuyu the National Sport Council the Dex officer of Wrestling Ablaye Bojang Alhaji Matar Jaaju the president of Gambia Wrestling Federation ak ñi nga xam ne ñoo jàpp si aada ak cosaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyuwaat manager si di nuyu ñëpp yaakaar naa ne. léegi tey euh, euh, Mara su fekkee ne am na li ngeen si mun a yokk. si li war a xew wala Jibril. wala ki nga xam ne mooy du jàmme affaire sécurité. Euh, mbir maa ngoog nekk na lu rey yaakaar na waaw li ñu ciy yokk bari na bariwul ndax dañ comme di wax ak manager si rek suñ mbokk manager si xam ne lii bu ñu koy def ñun manager si ñun lañ ko defal ak Gambia dina wax nañ waxtaan ak seen écrit yi ndax tey ji manager yi ñooy écrit yi manager yi ñooy coach yi na mbër yi génn fans club yi génn. nit ñi génn ñëw seetaan si te xam ne ñu koy def ñëpp ay doomi Gambien lañ te te jii lii lañ yaakaar pour teral si seen waajur ëllëg te ñun ñoo ñi nga xam ne ñun ñoo leen mën a jàppale ñoo mun see am ëllëg loo xam ne nañ si mën a teral seen waajur dina wax nañ génn kaf ak ree la bugguñu fa benn problème képp koo xam ne ne da nga ñëw pour problème am na ñoo xam ne ñoo war a fees ak yow ñaan nañ leen ngir yàlla ñëw leen ñu kaf fo ak ree dañ bañ ba ne cosaan ak aada dem ba ne nañ génne ndàmpaay yoo xam ne pour cosaan ak aada kon kooku ñooñu dañoo bëgg foo am te yaakaar naa ne fi mu toll nii képp ku si nekk doomu réew mi nekkoon daw doon yëngu si leneen bàyyi nga ko daw wutal si làmb te lamb dafa nekk loo xam ni foo boo xam ne la day développe foo boo xam ne mën nga see tabax kër mën nga see yóbbu sa yaay màkka ñaan naa leen ñëw leen ñu jàppalante suñ biir ñu ñëw bëre ko si fulla ak fayda kaf ak ree bu jeexee ñu ñoom ñu bokk ndey ak di sant ñi ma àndal ku si melni Ousmane ak aladji Mbay Ousmane eh, Diouf ndongo Alaaji Mbay eh, jëf jël jëf jël di wax manager amna manager yo xamni nak kol nañ ma ma xamal len ni len meeting bi jeex na parce que ñu ngi ni jaar tes am lu ndaw luñ fay agalé rek sant nañ len gërëm nañ len contane nañ ci seen rafetay rafet togaay bi yépp Mbara bla mala baye waaw ñaata mbeur nga foog ne ñu ngi Gambia ño xamne ñu ngi bay seen war ci lamb yaakar na ne national development bi biñ ko oté am solo bokku na si li nga xamne mu ngi contribute mm-hmm. government efforts pour mm-hmm. eh, self employment lamba jusan lag ada, aada mm-hmm. lamba làmba passé na beuré rek ñu ne tur rek nga si am parce que jamono non la lamb ran démé lamb nak dem na ba nga xamne ñu ngi tabax kër di si janday moto ñaata mbeur nga foog ne Gambia ligi am nañ ko si ñi nga xamne ñoy yëngu si lamb fim toll su ma la bëggee limal li nga xam ne tey jii ñooy takk seen gemb fii di fi bëri yaakaar naa du ma fi jógee kon nag loolu dafa nekk loo xam ne développement la ndax tey jii yaakaar naa ne am na ñoo xam ne tey bi làmb doon soog a jóg ñu ngi naan du dem yàlla ak suñ président bi mu pousse ñu si may ñu si doole. bi yoon wi lëndëmee moo. bi mu lëndëmee crise moom moo xal yoon wi ba nit ñi xam fi ñu jëm. c'est professeur Alhaji docteur Yahya Ejiji Jammeh. kooku promoteur bu mag bi nga xam ne moo nekk Gambia. dëgg la moo amee lamp bu di ñu niital ragaluñ dara. lamb dina dem aada ak cosaan la si Gambia. moo ko jàpp. Anda promotor promoteur si Anda rasulim federation mm-hmm. ministre bi ñew ne mo gëna bëgg lamb national sport council ñu tegal ñu fa ko xamné mm-hmm. lamb rek lay dund muy mm-hmm. Ablo Bojang kon lamb dina dem làmbang si yoon nañ ko japp suka mu nyu a romb su ko défé ñun ñëpp ñu am ndam euh, Jibril lenen lo ci wara yok wanimba ok wani mang ku palon kupalon kujola yonam ano mbu jodi funaka fe kant be e- enom ticket ticket eledo abe jo mulako mujike kaiga be na kaiga kubanu nujobod dikaire paske security yo yo tu ejume wanosani wanosani wan manyu wan, wa, wa, wa, wa jakali tambu bajdo weje tu gaba jijo manji jiker kaiga yoni bajum beregu ñom de safu fam fam <laughs> jërëjëf Jibril eh, yaakaar naa ne waxtaan bi am na solo mhm. yaakaar naa ne lépp lu nit war a dégg dégg na ko si bés bu nga xam ne moom la ñu dëgmal li ko waral nag mooy aada ak cosaan a neex li ko waral mooy gis ngeen làmbu yi nga xam ne moo daan xew si gannaaw gis ngeen euh, kanilaay di président waxtu nga xamee ne kanilaay bëri am na mu génn mu toog jàkkaarloog askani Gambe jàkkaarloog mbëri di jël lu bëri di ko def si làmba di jël lu bëri di ko jox mbëri kon buñ demee ba nga xam ne nii am nañ président bu jàpp si làmb mm-hmm. ki nga xam ne mooy président réew mi Cheikh professeur alaaji docteur i Ijeje Jammeh mu jàpp si li nga xam ne mooy làmba kon yaakaar naa ne keneen wartu def compagnie si nañ war na ñuy ñëw dugga si mhm. individual yi nga xam ne am nañ lu li nga xam ne seen suñ tuut seen poos mhm. ñoom it war nañoo ñëw jàppale ndaw yi mhm. ndaw yi Gambie soxla nañ dimbal si li xeetoog li ñu ooyee làmba kon su ko defee compagnie si nañ bàyyi xel loolu individual si bàyyi xel loolu ñi nga xam ne tamit ñuy dund aada ak cosaan bàyyi xel loolu suñ président bi jàpp na si pour làmb dem. parce que lim dugal si làmb da kàr macha allah la lu bari la li nga xam ne nit mënul koo wax. Hmm. kon event bii di ñëw. yaakaar naa ne compagnie si nekk Gambe individual parastatal si ñoom ñëpp war nañu jël euh, li suñ tuut dugal ko si event si pour jàppale ndawi réew mi jàppale Gambia jàppale promoteur yi jàppale ñi nga xam ne mooy Gambia Wrestling Federation. Hmm. kon yaakaar naa ne monsieur Jammeh lii lu am solo la te bés boobu noonu foog naa ne. li li leneen ak leneen dina fa xew waaye ñu bëri dañ dee laajte promoteur yi bu ñu tëggee làmbu nit ñi car masha Allah dañ dee bëri euh, boo fa yóbbu woon sax juróom fukki sécurité sax euh, ba tey dafa mel ni sécurité amul euh, bii nag event bi nga xam ne dafa mel ni oote bi free la kenn du fay dalasi mu war a xew Serekunda West Mini Stadium ak nu lamba di signalé ak nu làmba amee solo ak nu làmba amee doole si réew mi yaakaar nga ne sécurité bi dina doy doy boo xam ne ñun ñëpp ñoom ñu fa nekk yëpp dinañ fa euh, dinañ fa benefit ñom ñi fa nek yëpp dinañ xam ne euh, ji même suma ma suma dombu ndaw sax lim gëna tuti ma ñew tok ak mom ak salam rek lay am monsieur Dia. Euh, moo tax maa ñaan ko ne la te ya ngi uyu si turis security bi si bore bi bu tok ne ñaar ñetti police lañ fi indi xaaral seen ligé la non security ñun ñoko ko bokk a lamba bi jàmm gëna fofu si jàmm loolu la ñoo ñaan ci ko lolu nak fo gis lo xamne amna jafé jafé dal ama ama dimbalé ñu ñuy solve problème bi ganaw lolu ñi dem di daw di dem di aki ref di ko sagandé wala di sibir, ci bir arène bi fo xamne fu boré kat yi dé boré té yow lo si dara ñu fa kenn ku fa dugga nak lo fa am nak ya ko utal sa bopa sécurité mom duñ ko compromise because lolu lañ fi am ci suñu réew mi fi jamm ak taranga jamm ak salam mom lañ la am ganaw lolu ñu ngi nuyu président jox nañu opportunité bu réy si Gambia fi du julli du lenen ñu ngi ko amee jéeka ak saranga du chrétien du muslim ñun ñëpp a am